ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér ak Dakar net daara du la rëcc ci réew mi. waaw mbir mi am fi jaam ak pexe yàlla ak ndogalam waaye hôpital bi ñun luñ ci dund ak yeneen médecin yi ak yeneen malade yi ñun sonn nañ parce que ñun malade lañ fi am boo leen bëggee tey sama téléphone ma taal ko wan leen garab yi avant encore lañ fi am malade boo xam ne xelam neexul ñu ñuy jaabanteloo suñu ay mbokk ñëpp. wax li ñu mën ak lu ñu mënul yëpp yaa ngi dégg presque 300000 ñàkk nañ ko fi ba tey taxul ñu faj di ñu jaabantaloo guddi ak bëccëg boo fi ñëwee ak yi bu baax sa doo ko am yàlla moo tax may wax hôpital bi li fi nekk yëpp ku toogoon di ko wax du jeex bala ngeen si waroon xam dara ngeen dugg ci yàlla moo tax may wax ku leen fi seede lu rafet da fekk nga am fi mbokk mais tey jii ku fi dund lu nekk man li ma fi dund sama malaata nga ne kër ga boo leen ñëwoon tey ma wan leen kii la te xelam neexul fi borom la amee ñaata weer ñu ñuy dawloo dañuy dawloo ba duñ mujj dañ koo génne fan yee passé lañ ko génne ñëw nañ ba ci directeur bi li may wax xam na ko dem nañ aussi tamit ba ci préfet préfet man li may wax xam na ko dem naa maag moom ak sama borom kër ba ci préfet si boppam moom moo ñu indi fii daan ni ah yéen kat xaaral ma woote directeur bi mi ngi tudd madame Badiane li may wax man yàllaa tax may wax ban ñëwee woote ñu ne indi leen ñu opéré ko ban ñëwee taxul ñu opéré ko dañoo dugal génne ba sama yaay mujj feebar ba sonn daal di toog ñëwatul am na yenn yoo xam dafa rafetul may ñaan nag Macky sàll mu xoolaat nguuram xoolaat réew mi xoolaat li fiy xew askan wi sonn nañ ndax tey jii li nga mën a dajale pour jënd garab tey ëllëg sa morom mënu ko ñun ñi tey ñu ngi nii jeexal nañ dañoo mujj toog yóbbu suñ malaat loolu c'est pas normal ah dëkk bi dañoo war a wax. du dëgg d'accord yow mbir mi nga xamante ni moom am démb yow euh, déjà da nga da nga bëgg da nga njort ni négligence euh, moom ci nekk. non négligence am na ci parce que kenn ku ci nekk am nga loo fi dund yàlla moo tax ñuy wax. kenn ku ci ne am nga loo fi dund muy man di sama moroom bala ngeen waroon a xam tey média yi ngeen génn xool dëkk bi laaj la ñoom lu ñu dund ci hôpital bi li ma metti nag mooy li ñu tuddee dabaax maali hôpital bi te royuñu ko si dara man lool daf ma metti yàlla rek moo tax may daf ma metti parce que dabaax ku ko xooloon ku ko xamoon tey jii maanaam ci yërmandeem ci baaxam ci tabeem ñoom waroon nañu am neneen nu ñu doxalee loolu nii gis nga da nga ñëw di laajte sa sa sa sa malade